askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñëw fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm la quotidien yéenekaay lañ koy dooree yéenekaay bi xëy ci xëtam bu njëkk daal di ànd ak le quotidien yéenekaay bi dellu di ñu xamal ni ñu conseil constitutionnel nag jot nañu daal di wéral li nga xamante ni moo di tukkee nag ci résultat yi législative yi ni sept sages yi de ma ne ko seenub décision wér na rax ci dolli nag li nga xamante ni moo di recours ya leen doon jébbal lépp ma ne ko dàq nañ ko gàntal ko daal di koy rejeté jàngatal yéenekaay bi ci biiram am ca lu la leer noonee jàll ci libération yéenekaay mu ni juróom-ñetti recours la ne ko la ñu jàll ma ne ko daal di koy yóbbu ca poubelle ba daal di teg mu mel ni daal ma ne ko débouté nañu ñaari yoon ko reprise yi nga xamante ni moom la ñu xamle xalifa Sall ma nit la mu bëggoon moom moo di ñu daal di annuler résultat yi ko nga xamante ni am na ou à défaut sa ma ne ko de Dakar Kolda Foundiougne Tivaouane Louga Gossas Kaffrine Europe du Sud Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre Libération yéene kaay bi moo ko xamle 24 heures ñëw di ñu xamalaat ni ñu résultat officiel u législative yi Dakar ko ak ko Mbàkke yéene kaay bi dellu na di ñu xamal ni ñu jugement de Salomon ñu daal di gis juróom-ñaari sage yi la yéene kaay bi xëyee na ko seen xët mu njëkk rax ci dolli nag ñëwaat ci li nga xamante ni jot na daal di xew yéene bi ba tey daal di indi nag ma ne ko lii nga xamante ni moom moo ci daal di tukkee ak recours Khalifa Sall kon non lañ ca daal di wax Mamadou Lamine Diallo yéene kaay bi ni conseil constitutionnel se met à genoux devant Macky Sall yéene kaay bi noonu la ko dippee Déthié Fall ni ñu ak ma ne ko menace xupp lañ fi daal di gis loo xamante ni lu sérieuse la sérieuse la di salfaañe nag suñu démocratie plainte bu yaanaamar fa séene ak rado amnistie contre ma ne ko Sénégal ma ne ko jëmale jëmale ko ci CEDEAO l'observateur yéene bi ni ñu dëgg yi nga xamante ni kii di Oumar Sarr secretaire général adjoint parti démocratique sénégalais jot na ko daal di génne xam la ne nag ma ne ko bu ñu demee ba xam ni askan wi nemmeeku nañu ni dëgg amatul danañ doxal seen bopp ma ne ko dëgg gi nga xamante ni moo di mujj yéene kaay bi daal di koy xamle naam dellu si waat juróom-ñaari sages yi nga xamante ni rejeté nañu recours yi nga xamante ni nag dellu di confirmer cour d'appel bu Dakar Dakar Time ñëw di ñu xamal ni ñu nakate suñu réew mi di réewum Sénégal am na li nga xamante ni moo kaaraange gu wér te wóor nemmeeku nañ ko ak Abdoulaye Daouda Diallo naka noonu njiitu réew mi son excellence Macky Sall ndaxte gis nañ fi ay réew yu nga xamante ni yu mag ma ne ko kaaraange mënta absolu ndaxte gis nañ fi réew yu mel ni France États-Unis naka noonu Grande-Bretagne am nañu ak ma ne ko mbetteel ci seen wàllu kaaraange yéenekaay bi di Dakar Time daal ci fësal ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Daouda Diallo Zoom Info ñëw di ñu xamal nañu li nga xamante ni nag moo njiitu assemblée nationale ñu ni Cissé Lo ba xam nag dafa ba bëgg daal di joggati ci yi nga xamante ni njiitu mi son excellence Macky jot na ko daal di teg am déet yeneen yéene kaay bi am ca lu la leer loo ci mënti dégg daal samp na aw ndëndëm ba xam bi la yoon ci assemblée nationale bi la koy tegaatam déet yéene kaay bi laaj la moom mu daal di samp l'évidence yéene kaay ni lu wérte wóor daal moo di sage la nga xamante ni moom la ñu confirmé di échec ku gaynde Fatma ca li nga xamante moo di mbàkke ak te fetu man ko fii ci ndakaaru loolee wane ko wér na te wóor booba la jamono nag les échos ñëw na ci leneen loo xamante ni fës na di gegeer bi nga xamante ni xiroog ngaayoo la ak ci biir inaak waa jàppoo ñu di idi caam fi mu toll nii nag de na ni ñu ngi koy wër yéene bi moom moo ko daal di fësal daal di rax ci dolli nag di xam ne ni ginnaaw ba ñu caxat-caxatee siège u beneenub Unacois Jàppo ba Idi Thiam dañu daal di woon te daal di opposé wu nag ci gala bi nga xamante nii nag Unacois bi taxawaloon na ni danañ ko daal di amal noonee yéene kaay bi ñëw ci ak ku tëgguk wëndeelu gu nga xamante ni escroquerie foncière la coowul suuf ñu ni Queen Biz artiste bi nag ma ne ko jot na daal di porter plainte ab agent bu des impôts ko boo ko xoolee ba ca biir coow la laale na ak ñaar fukki millions ak juróom yëral yéene kaay bi am lu la leer noonu ñu jàll ci enquête mu ni leneen loo xamante ni Li Ndour ci ak ndoddam la daal dal ñu ne lu tolloog ko ab na ni ko càcc gu yees ca groupe Futur Média yéen bi fësal na lu tolloog ñeent fukki millions yoo xamante tëgg nañ ko entreprise boobee laas ni ñu ko yàbbu ne xalaas moom ñi nga xamante nag kii di Amicole la Dieng ak ki nga xamante moom moo di Penda Ba ci coowul ma ne ko ñàkk worma yu nga xamante teg nañ ko ki réew mi son excellence Macky te nag war magu tegginewul mayewu ko ñu ni liberté provisoire la ñu am naka noonee teg na ci Ulaymaan yéene kaay bi daal koy xamle waaye bawul ba tey ni kii di Ami Collé Dieng weral na ni kàddu moo ko wax naam nag jéggalu na ci kanamu njiitu réew mi stade yéene nañu Real Barça 21h la ma ne ko la yéene kaay bi xëy daal di fësal mu ne Real nouveau roi d'Espagne yéene bi xëy na daal di koy fësal suñu lamb ñëw Ama nag am na place ci VIP bi Bombardier la mu seetlu ca moom mooy day faral rek di di énervé wu ci combat yi muy gis Vox Populi ñëw ci leneen loo xamante ni ñeel na suñu tuut tànk yi ak ndaw ñi ñu jàpp ne daal mbir mi nga xamante ni am fo ci fawum taat bari na lu nga xamante ni danañ koy faral di jëfandikoo lool gëstu bi nag ma ne ko wane na ay ma ne ko xayma yu nga xamante ni doy na waar loolu ñu koy jël nag ci yenn anam yu nga xamante ni danañuy faral nag ko di gàntal maanaam ay ñuy faral di jël yéeni bi fësal na ko ci centre ado yi nga xamante ni ca géejowaay boo fa demee mu daal di koy fësal mel noonee les échos yéenekaay bi dellu siwaat ci ab réseau bu nga xamante ni jaay seen bopp la ca daal di am waaye boo ko xoolee ci ab ko seen su ndaw su nga xamante ni marié na ak ma ni ko police yéenekaay bi fësal na ni daal lu jéggi dayoo nga ca biir mu laajaat ma ni ko ab gëstu noonee ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari ko kenn ngëpp ko ñëpp comp as lëf ci yéenekaay jaa ngeen jëf